guddik fukilge ga ku ca julli ñent rakka bu ci ne fati ak ayatul kursi ben yon yoon ak ina ansalnahu fukki yoon ak ñaar bala ma joge fa mu ko doon julle des na ko jéggal bakaram yu jëkk ak yu mujj des na ko bindal tuyaabay juróom fukki nit ñu ci way deggal yi ak tuyaabay juróom ñaar fukki nit ñu dee ci bala moo génn àdduna dana mas lu bokk ci meññeti àjjana te des na ko ramuloo juróom ñaar fukki nit ñoo xam sawara yey na